มาไหม waaw jaa ngeen jëf euh, mbokk yi euh, yéen ñu ngi seetaan à travers Gambian Talents euh, TV jii ñu ngi fii nga xam ne rek moo di Sumbijun tey nga xam ne rek moo di moo di moo di moo di nga xam ne jàpp nañ ci ne Koukandé fii la waxoon ne bu ñëwee moom rek nag gis ngeen yéen yéen a ko déggandoo fomm na ko na ko li mu joxe Wayna goli bu dinañ la di am waxtaan ak moom ab mool la boo xam ne fii lay liggéey euh, ab lébu la boo xam ne fii lay daanee dooleem ñu waxtaan ak moom ci mbir mi euh, ba saa yi diggee ne dina xar géej gi ak lu ci aju yëpp euh, incha allah dinañ ko daal di jëkk suñu micro daal di waxtaan ak moom sànq ñoo ngi lay nuyu. bu baax sëñ bi. tur la. Alioune Tall tey ñu fekk la ci géeju fii nga xam ne moo di Soumbédioune nga nga toog ci sa ay gaal di waxtaan tey numéro bi nga xam ne balaa ñu dikk sax si fomm beeg yu ñu mel gis bi nga ko njëkk wax ci benn ne euh, dañuy dafay daal di rek xar géej gi yow ba nga ko déggee ban réaction nga nga nga amoon. bisimilah man moom bu ma ko déggee moom réaction bi mu si njëkk a def moom mag sama jabar moo toog dama tëbboon di nelaw sax sama jabar yeema dama man de li ma dégg jaaxal na ma man dama dégg mu ne ma benn sëriñ lañu woon ak télé fii mu ne ma mu ne jour yawmal asura jour tamxarit yi day xat géej gi ma ne ko soxna si mënulaa ma ne ko loolu mënul nakkat loolu benn mbindeef rek la ko suñu yàlla jagleel woon ma ne jëm si yàlla Moussa te ba mu ko koy jagleel ne jour boobu ay noonam dañ taxawoon bëgg ko noot yàlla jox ko benn secret wax ko ne ko jëlal yaxyat boobu nga yor boo ne laa ilaha illallah boo ko dóoree si géej gi géej gi xar loolu moom mën naa ko gëm waaye doomu aadama bu mel ni man di woote sëriñ rek simple sëriñ nekk ci Sénégal fii di mu ko waxee ba léegi man musuma ko gëm heure bu ma toogee jataay di wax jataay bu ma toog gars yi dafa werante dinaa leen ne lii loolu mënul nekk te bu boobaa bu demee ba si jour kenn du ko teg bët moom mi nga waxoon moom kenn du ko teg te dèjà rek tey jii rek ñun ñi nga xamante ne ay mool lañu bu ñu yeewoo suba am na lu ñu suñu borom moom ci géej gi moom géej gi tey suba bu ñu yeewoo dafa sambaraax dafa mer dafa mer du sotteeku géej gi fan yëpp melul nii dafa yëngu nii tey jii bu ñëwoon moom ne lii daf koy def nii day xaw day xaw day xaw a doy waar moom ndax ñun gëmuñu ko ñun mool képp kuy mool nekk mool nekk lëbu dem géej yow gëmoo gëmuloo kooku xam nag ñeneen mais ñun mool ñun gëmuñu ko ñun te it bu ko dem bu ñëwoon su mujjum si moom amu fi place def ko fii ñun ñoo ko moom xëy na mu dem feneen daan nañ ko gis nag bërëb bële te ngeen gis ne may may joxoñ ne moom foofu la daan nekk di def ay fétisem ay cuuraayam ak yooyu du sëriñ bi dara doomu aadama loolu am si maa tey su ma déggee sa wax ji ndax nit ku xam géej mool bu ñu waxee waxee euh, lébu xam lébu ak ni mu xamee géej. Euh, nga gis géej gi euh, mu ngi daal di li nga xam ne rek mu ngi baat bi mu ngi daal di dóoru. waaw su ma déggee sa wax mooy xëy na mer na waaye bu ma ko mën a dégg mooy dañ ko provoqué. waaw waaw waaw non non non xëy na lu mën a nekkal xam nga géej gi moment bi ñu toll nii si nawet lañ nekk yooyu day am day am day ak ngelaw bu ngelawee day sambara quoi mais maanaam li ma la mën a si mën li mën a gàttal rek moom yàlla da ko doon woon rek benn buntu bu ndaw nekk man sama si samay mbir mënoo si dara moo waral tey jii bu ñu yeewoo suba ñun quatre la ñu pour dem géej mënuñu dem géej dañu arréeraat ñun ñëpp ndax ngelaw ak géej bu ne mën na xar géej ñun duñ ko euh, wax tàkkusaan jot jot na wala passé na euh, euh, te si la waxoon ne ci lay xar géej gi ah, euh, donte ko sax wax na ni fomm na ko waaye ba tey boo xoolee kon géej gi dalul mhm. loolu mënees na misaal ne même bu waxoon ne du ko du ko def sax mhm. bu fi ñëwoon loolu xëy na dina am lu ko gàllankoor bu baax xëy bu ñëwoon tey ji di ko dem day am gàcce xaw ma da ko mënul mu bu ñëwoon di ko jéem bu ñëwoon di ko di ko jéem tey ji géej gi ni mu mel ni ak ñun xam ne si mujjul mm. bu ñëwoon di ko jéem gàcce moo ko fiy jëlee gàcce moo ko fiy jëlee. ok euh, euh, euh, tey lan nga mën a wax maanaam ci ñu mel ni Kounkandé daanaka ñu bari la ñu woy ay féticheur mooy dafkatu garab yu ñuul yooyu te ñu bari société bi lool bari nañ fi muy Gambie muy Sénégal muy ci Afrique te jii noonu waa en tant que yow mi nga xam ne te ñu ci bëri dañuy jëfandikoo yoo xam dañuy jëfandikoo ak waaw waaw ñooñu si gàttal daal man sama xel sama xel mu gàtt ak sama xalaat ñooñu ñëpp mooy genre Kounkandé yi autorité yi ñoo war a jóg ñoom mooy gouvernement bi kese ñoo si ñoom dara ndax ñun ñi ay simple doomu aadama lañ daw mais bu fekkee bi gouvernement bi dugal na si loxoom sëriñ si ndaw si dinañ téye seen gémmiñ mais Sénégal dafa yomb yomb boo xamante ni ku jóg rek wax ku jóg rek wax nit ñi def ko benn rumeur boo xamante ni tey ñànk àdduna kon loolu war na mën a xew Sénégal jamono yi lu passé yàggul dara ay at si kanam amoon na fi benn rumeur bi fi amoon na problème Cheikhou Chérif yi Cheikhou Chérif ñu ñëwee ay booy yu ndaw ñu ko dàq jàng ngi fi yi gësuñu woon loolu ay booy yu ndaw ñu ko dàq jàng ñi ngi fii Sénégal fii te gars yi gësuñu loolu mooy genre kunkaangi gi ak yëngal finna rek la ñu mën a rek bu leen gars yi jàppoon tëj leen si kaso bi ñamal leen kaso bi daañ bàyyi wax daañ bàyyi di jëf ñoo sonal sëriñ si ñoo ju ndaw ji ñoo solal xale lu góor yi lekk xaalis tas yaakaar kese lañ fi nekke ñoom sëriñ su ndaw ji kese lañ fi nekke amuñu benn xam-xam lu wër di wax rek kese Euh, tey euh, bu fekkoon ne nee na fomm ko mu waroon a ñëw Soumbédioune moo xam fii la wala ci euh, barab ba yéen yéen yéen nga xam ne yéen fi di fi daan seen dool di liggéey nan ngeen naroon a accueillir kon dañ ko dul may loolu sax ñu ay nekk si gaal xoolal fii di fi nekk tey ji bu ñëwoon événement bu mel noonu du fi am la fii demee kon naka la fii demee dañ ko ko dul may sax dañ ko dul may mu wàcc fii naan day xar géej day puus géej day dadal géej géej gi kenn rek moo ko mën a puus muy limaamu laay moo ne ko puusal ma dëkk moom kese la ko yàlla may ak ak yent yàlla Moussa moo xar géej ñaar ñooñu kese la ko la ko suñu borom may kese kese la ko suñu borom may amul beneen mbindeef boo xam ne mën nga taxaw fii lu wax lu ak Cheikh Ahmadou Bamba borom dër bi kooku kese moo taxaw si géej julli ñett ñooñu bu ñu taxaw ne wax ne mën nañ def géej nangam ñun mën nañ ko gëm ñun mën nañ ko gëm waaye képp koo xamante ne du ñooñu man boo ko waxee du ma gëm ok euh, euh, euh, tey ki ngeen nekk gaal yi di ngeen di liggéey ak yu ni mel mu waxoon bu ñëwee dina fi def comme spectacle. Mhm. fayee ko xaalis. Mhm. tey ji ngeen jàpp ne loolu mënoon mënoon na nekk fii koo xam ne billet cinquante mille nit ñi mën a dugg fii ak fan lañ sax war a jaar. pour mën a dugg ndax fii dafa mel ni lu xaw a lu xaw lu xaw a xat. dafa am loo xamante ne nopp moo bu bu wax dofee nopp yi koy dégg dofuñu. moom tey jii bu ñëwoon fii def spectacle naan dafay teg ay ay pëjëm ak di fayeeku cinquante mille di xar géej gi loolu ñun duñ ko ko ko may. ok waaw ah, déggoo ñun déggoo man la gannaaw fii ñu nekk ñi fii fii li fi nekk ñi yëpp moo ñu gënal suñu kër moo ñu gënal suñu lal yi ñuy tëdd gaa li ngay gis nii nii nii nii képp kuy mool nekk fii li nga fi am moo la gënal fa ngay tëdd donc fii mooy bërëbam mais sa alal mu ngi nii fi nga teg fi ngay fi ngay jëlee dépense fi ngay jëlee lépp kon du ñu bàyyi benn samba booy ñëw fi def def affaire bi ñàkk a fayda duñ ko nangu ok ah, ah, ngi wax loolu lu tax moom mu tàmm rek Soumbédioune te Soumbédioune ci li ma ci for ak tuut euh, euh, mooy dafa benn géej la bu bu historique bu am bu bari ay histoire yu mu yu mu dëxëj. waaw waaw ah, moom ci loolu la xam wala lu tax mu tàmm su Soumbédioune ndax su Soumbédioune mooy géej gi gën a rëy fii rek. wala lu tax mu tàmm moom moom fi bërëbam bërëbam la woon. moom fi bërëbam la woon ci ginnaaw amoon na fi ay góoy yi daan nekk di daan def ay fidis di ay nag di ay sangat yooyu. ay nit ñëw comme benn dof benn dof bu jigéen ñëw rek maanaam si gàttal ni ma la ko mën a waxee mm. kooku xamul dara ñëw rek dama am problème mu yóbbu la fële ak ak benn nagam ray def la ay sangat yooyu xaw ma yaa di nga gis xaw ma doo gis moom moom ay jamono daan na nekk foofu moom ak benn booy booy boobu sax dafa mujjee desetul dégg naa quoi ndim la àndal quoi. ok mais mais ba tey um, laaj bi mooy ndax Soumbédioune uh, dafa dafa am benn benn histoire bu bu bu bu maanaam xëy na lébu yi di ngeen ko xam. waaw xam nga xam nga Soumbédioune bi dafa nekk teer dafa nekk teeru boo xamante ni. dafa nekk teeru bu ndaw bu tuuti mm. mais dafa nekk teeru bu yaatu boo déggee dafa nekk teeru bu yaatu mm. dafa ëmb lu bari ci gox yi nekk fii teeru bépp bépp teeru bu nekk fii moom moo la ëmb mm. moom moo jàpp donc waxaam moom mooy teeru bu mag bi su mburu waxaam moo ko mag si si wàllu pes euh, booy nekk marié pour nga am carte foog nga dem wakaam mais boo déggee Soumbédioune gën a yaatu xew-xew yi fi am yëpp fi am rawante yi fi am yëpp fi am lépp lu ñuy def si wàllu moo ci pox fi lañ koy defee ndax fii moo gën a nekk fi moo gën a fi moo fi moo gën a jekku quoi moo a jekku quoi moo gën a nekk moom gën a placé fi lañ mën a def rawante mu neex fi lañ mën a foote rab bi gën a màgg tamit si Soumbédioune si hmm. si si maanaam si gox yi si gox yi tax yi hmm. fii la nekk muy muy ban rab muy euh, waaw lëb daaru lëb daaru mbay waaw ndax damay faral dégg euh, mu ne tàgg tàgguna tàggunaa lëg daaru waaw ne tàggunaa lëg nangul na connaissance ah, waaw nangul na mm. mais ay waxu yu waxu ban def presque 40 ans 40 ans def at def ci 40 ans yu fay def lolou 40 ans ko deg ko ko wax wax experience ko wax wax connaissance tay ji ndax affaire rap rek la daw mosul Euh, réagir ci diiru yi nga fi nekk yëpp ci wàllu xëy na yenn yenn yu fi xew wala leneen mu mu war a def dara wala yu doon sama dëgg laa lay wax hmm. rek laa taxutaal daal hmm. li ma fi nekk yëpp dem géej musuma ko teg bët hmm. musuma dégg mu def réaction musuma ko dégg mu def bu ñuy ñëw dem géej suñu gaal yi daal suñu keesaan yi jël teg suñu bagage mais comme yo moom yooyu wax naan ne gis na ko waxtaan naa ak moom xëy na moom moo ko gis nekk fii rek mënu la wax ne na daal am am may nañu jàmm nag daañu dem géej daañu dem teer di ñàkk nag ñu doom yi sangu ñu ni ah doomu du nangam def na géej ak yooyu te xam nga yooyu si géej la am waaw si géej la am yooyu moom dafa ñàkk moom mais pour teg sa bët ni ñun musuñu am yëpp liñ nekk yëpp musuñoo tere dem géej mais musuñu toog la bu kenn dugg si géej am ok ma tëjee yow ma laaj la tey jii ne la bu mu ne la woon libu parce que bëgg ma ñëw rek waxtaan a yow ci Kounkandé kese ndax loolu waaye bu ma ñëwoon tey bëgg a waxtaan ak yow ci en tant que lébu ci lébu nu mu nu mu nu fonkee géej ci lébu nu mu mu bëggee géej ak nu mu ko joxee it ah, ah, ak cërëm waaw ak xam ak cërëm ndax tey lébu yi tey léegi ñi gis seen bopp ci géej googu lu bu baax a baax xëy na waxuma état wala wala wala sax yenn ni société bi di xoolee lébu léegi waaw waaw loolu moom moo xaw a moo xaw a manqué lébu yi quoi euh, daanaka ñu ngi dem géej ñuy dem géej mais ni ñu waroon gisee suñu bopp si géej gi ba tey gisewuñ ko si géej gi ndax géej gi ay yàqu-yàqu yoo xam ne kenn mënuñu ko expliqué te maanaam suñu moromu moo da koy def te ko mën a tere wala bato bi ñëw fi nga xamante ni waru ko mën a mbaal parce que boo génnee fii de même pas 15 kilomètres bato dañ lay tere liggéey te loolu yëpp si wàllu autorité ci wàllu yoon gouvernement ñoo ñooñu ko waroon dàqal ñu ñu génneloon ba yi yeneen façon nappin bi ñu tere ko amaana géej mool bu ne mën na si gis mais gis dafa yàqu léegi bari na façon napp bi yoo xamante ni mënoo ko sax togg gis bi ndax sa morom da ngay def da ko mën a tere te bokk ci géej maanaam lu mel ne ser ay mbaalu fele fele ñu yolog yooyu yëpp day day gàllankoor géej day gàllankoor géej ak ay maanaam dèjà li si mën a am li ma li ma la mën a wax li si nekk di xañ moo bari na ko bari na. Hmm. Euh, gouvernement rek moo si mën dara. Hmm. te moromu moo la moo koy tey jii ma jox la sama sama sama sama euh, li nga xam ne moo sama antenne. Hmm. wax la ni la boo amoon benn euh, cri de cœur booy def maanaam bu fi amoon ba looy joytu. bëgg si saafara. man jox naa la man sama antenne. ngir yow nga ñaanee ko à travers man sama antenne. lan ngay wax. waaw man moom li may ñaan li may ñaan yàlla moom mooy yàlla def jàmm si adduna bi.

waxtaan ñoo ngi jégalu nag bu baax a baax a baax ñu ngi lay nuyu waaw maa leen di fay. tur tur bi euh, naka la. Mour Fall. Euh, Mour Fall. Ah, ah, ah. euh, tey ñu fekk la ci géej nga toog ci ci ci gaal yi fii ñu déggoon la sànq dinaa dikk yow ci géej waaye balaa muy ñëw ndax li gars yi wax rek actualité Koungheul mooy def moom moo nekk di di def actualité fan yi en tant que tey yow mi nga xam ne yàgg nga fii ci géej gi yàgg nga di napp xam nga géej xam nga xam nga lépp géej tey ji Koungheul mi naroon a xar géej. Euh, yow waxuma la sax nga seetaan ko dégg ko waaye bu nit ñëwoon rek tey tey ne loolu mën naa ñëw tey xet géej ndax yow euh, euh, di nga nga ko gëm. non waaw man loolu du ma ko gëm sax man mag laa. fii presque boo doon xool actuellement suñu gën fii ñëw fi mag man actuellement barewul parce que maa ngi sama 73 ans te lépp laa ko defee mosuma fi jóg mosuma jóg suñu jum 73 ans def naa am naa ko léegi. te suma jóg fii suma jóg waroo xoolee nag ak sama xool ma ak sama kii doo ma jox boobu âge mais naa la wax bu ba but actuellement boobu doon dindi fukki nit indi juróom li ma mag am na ko fii suma jóg ku nekk fekk na ma li ñuy wax yëpp kunkaande xam ak konkaande yooyu wax yëpp dara amus day wax lu ko neex rek man premier jour bu gisee kële mu yor lekketam googu laa ne kii day def lu ko neex ay kol lay jël di ko kole mu sottee lekk lekk jëlee ndox sotti lekket bi sotti subi samp ci bant boobu la doon kolee lekket bi ñu ay xale ay mag lañu lu nekk def nañ ko fu nekk dugg lañu ci Sénégal amul ñu deful man li ma tànnal fii si géej su mujjul loolu fu nekk laa dugg senegal lu nekk def naa ko waaw kunkaay man mënu ma ndax parce que na benn booy bu mu doon àndal boo xam ne sama rakk la doon àndal fii si ginnaaw musée bi fi la deewee lii kunkaay li def la doon def ñoo ñu wax ñoo doon ànd foofu la deewee ci géej fii ñun fi lañ dëkk xam gëm gëm nañu lëg daawul parce que ñun ay mag lañu bi fi nekk fii làmp amul fii konis bi lu nekk gis nañ ko fii façon lu nekk gis nañ ko dañaa toog ay mag ñu ñuy won nañu xool kër dem na le jinne la wala kër yi dem na rab la te ñu teg suñu bët xam ko gis ko waaw ñun loolu yëpp fekk nañu fii suñu jum ok tey jii tey jii euh, maanaam mbir Kounkandé sax duñ ci yàgg dara waaye maanaam am na ku wax mooy ki mooy jot sànq mu wax ci waxi meraayu géej gi ndax ba ñëwee ba léegi gis nañu ne. Euh, waaw parce que dafa mel ni dalul. non géej gi moom dalul parce que actuellement duñ ko sax wax affaire Kounkandé moo tax dalul ak yooyu. Hmm. parce que nawet la ñu nekk nawet moo mel noonu. mën nga xëy suba rek géej moom mu xëyoon waroon xëy def affaire bi géej gi yëngut mais si nawet la ñu nekk da ngay xëy rek géej gi yëngatu mais ku nga xam moom ay mbiram taxul sa géej gi yëngatu parce que si nawet la nekk ñun lu ñuy gëm mooy ña li ñuy gëm mooy Seydina Limaamu Cheikh Amadou Bamba xam nga yooyu ñu gëm parce que gis nañu teg suñu bët ba kii de moo Njaay xalifa Laayaan bi bi mu fi jógee gis nañu li géej gi def gis nañu parce que ay lébu lañu gis nañu géej gi def bi ñu koy jël bi ñuy jëlee sëñ bi yoof ko yóbbu Kaamale si paasu papaam Seydina Issa bi ku ko yóbbu di ko denc ko fu géej dafa daw xëy yoon yi pour ñu mën a dem si moom te booru géej ñu jaar ak moom pour yóbbu ko yo kam jëlee ko kam yoof yóbbu ko Cambérène géej gi dafa daw ay lu mat ay cinquante mètres xay pour xëy leen yoon yi pour ñu mën a jàll loolu yooyu ñun gëm nañ ko parce que ay jullit lañu parce que ñooñu mais koo xam ne dafa jógee fële ak say mos say xonq ak say béjjën nag say affaire di def say affaire golo yooyu ñun gëmuñu yooyu parce que dañ dañu gis ñu nekk dañ ko gis ñun toog nañu fii ay paa ay paa suma kër man toog naa fi ay paa jógee fi ne maa ngi dem damay dem il ba waxtaane waxtaane jeeg rab dafa nekk dem yoonam dem ba mu nekk mu ñëwaat te ay paa lañu ñooñu suñuy maam lañu te dañu leen fekkee loolu ñu leen ko fekkee waaw tey tam si Ablaye tam si Ablaye Diallo. daan ànd ak Sénégal maamu. Diallo Sénégal maamu laa ay sëtëm yi fii daan toog fi ba mu nekkoon maa ngi dem île ba fële daa waxtaan nay jinne dem yoonam te doo xam fu muy jaar doo xam si si pont lay jaar doo xam fu muy jaar. si si ngay séen lay dem dem waxtaan ak ñi muy ñi muy waxtaan ñëwaat ñu toog fi gis lu nekk gis nañ ko fi waaw Koungheul ñun ñu jaaxal xëy na xale yu ndaw yi la ñuy jaaxal lay jaaxal mais ñun jaaxal. léegi waxi ci bande nërmeelu na tey euh, lébu géej ci pénc ñaar yooyu yëpp ñu koy wax xam naa yow di nga ci xam dara euh, loolu lan lay tekki ndax dañuy toog léeg-léeg suñu la fukki pénc ak ñaar yi man man mii alab lébu laa comme yu ni mel waaw waaw yooyu boo boo gisee ay ay kii la ko ay quartier ay quartier yoo xam ne lébu yi ñoo ko sanc hmm. moo tax mu nekk fukki pénc ñaar hmm. xam ay ngaraaf hmm. ay kosul xam ay sancaba ay jakko xam loo yooyu ay mbot yooyu ñooy penc yi yooyu lëbu yu ñoo ko sanc moo tax ñu penc ñaar loolu moo tax ñuy wax. ñuy wax fii waaw ay tuur maam Njare. waaw tuuru maam Njare Njare maam Njare rab la yoo fa nekk. xam Kumba Kastel mu ngi gore fii lëg daawar moo fi nekk xam mooy rab bu góor bi. ñu si des yëpp ay eh, presque genn wàll rab yi nekk fii yëpp. Ah, lan lan daal rab bu góor bu góor la presque rab yi nga fiy déggee yëpp ay maam njareek ay kumba kastel yooyu yëpp ay jigéen lañ waaw yooyu yëpp ay jigéen lañ moom mooy rab bu góor bi loolu moo tax moo leen ëpp doole ñoom ñëpp. ah lan lan daawar lan daawar moo leen doole ñoom ñëpp. waaw ku si def tamit si moom ngay jaaree si ñoom ñooñu ñëpp. waaw ndax dañ gis léegi am na maanaam maam njëre euh, mënee su koo gisee mënee su koo gis nekkul nit euh, rab boo xam ne donc wala faaw nga am benn benn benn capacité benn xam am na am na xam ne dañ leen di teg bët di gis nii di wax ak ñoom parce que ñooñu dafa am leen yàlla may xam lox si affaire lëbu di ak ñoom ñii ñu lay gis kuy ak ñoom naan la lii leen ko def def leen lii def leen lii def leen lii yooyu daf fi am am ñu ay mag yoo xam ne mais nag suñu gannaaw mag ñooñu ñëpp dem nañu nag tuñ fi xam nga xale fi des xamuñu dara ñeneen yi dañuy def seen affaire golo yi rek ñu sóob ak kii mais mag ñi fi nekkoon di def yenn yi ay ñëw Ousmane Diop ku ma paateeg yooyu ak sama turandoo góor gi Mour Fall ñooñu lu ñu daan wax fii dëgg la waa ay ñëw wiyee mbooy saw ñoo wiyee poox puux ñooñu ñëpp paa yooyu dañaa toog di seen teg rab yi di waxante ak ñoom di waxante ak jullit yi lu ñu la bu njëkk fii dëgg la waaw mais euh, euh, tey ndax ñëpp lébu da koy juddu wala maanaam moolo faa nga doon lébu ngir nekk mool wala soxlawul nga maanaam mën nga nekk tey ji nekk te juddoo ci beneen askan euh, rek ñu war a mën a nekk mool wala pour nga nekk mool faa nga nekk lébu léegi bu njëkk lébu wala gendaar waa ndar yi ñooy nekk ay mool mais léegi nag métier la léegi métier la ku ñëw rek boo mënee fee rek jàng ko rek boo ko mënee rek mu nga dem géej fii ay pëlofuta ngi fi ay bambara ngi fi ay sarfule ngi fi ñëpp ngi fi yor seen gaal sax dem géej gi ñëw parce que métier rek yow yow léegi jàngal la sa marché jënd sa marché commencé liggéey léegi moom métier la dootul dootul dootul cosaan. ok waa est-ce que am na risque xoolee géej gi xam ne tey géej gi lii la wax bu ndax bu fekkee ne dafa juddu doon euh, ab ab lébu euh, xëy na waaye juróom dina ko wax ne ko géej bu defee nii lii la lay wax. Ah, bu defee nii lii la lay yow yow mi ñëw di jàng si. Mm. yow mi ñëw di jàng si. da ngay dugg si koo xam ne lébu la xam na géej. boo ñëwee mu wax ak yow di la jàngal nag naa la defal lii defal lii defal lii lii boo ko gisee si asamaan si wala nii boo gisee mu mel nii tànk bi mooy def nii lii mooy def mii la nga moytu wala nga def nii man moo moo doon dem géej ñi léegi sama yor GPS sama yor pere mun naa dem fu ma nekk si géej wañeekuwaat ñu waat suñu jul oh, oh. parce que façon jàng bi ma jàngal man ay maga ma jàngal damay jàng si ay bidéew ak si ndox ni muy doxee dama koy jàng ba mu mën ko léegi ko loolu mën naa ko jàngal sama doom wala sama sët xamuloo mu xam ko ah waaw tey jii kon bu fekkee yow soxla woo GPS maanaam lii lii wane ne tey géej gi dafa dal dafa nangam tey jii Baye euh, buñ toogee xool géej gi li mu def nii ma ne la woon ndax mënees naa jaal fii dem nappi loolu nga may conseillé man bu ma doon am nappkat ne dama bëgg a jam actuellement ne comme ni mu mel nii heure bi nii waaw ngi ko dem mais suba hmm. ku koy xool di si dem rek. Hmm. da ngay xaru wala ngay tere sa bopp. mais actuellement nu mu mel nii mën nga dem. mën naa dem waaw. mais am na yoo xam ne da ngay da ngay dem bu fekk si géej. Hmm. loolu mënoo si def mënoo si mënoo si dara. Hmm. da ngay nag léegi sa xam-xamu bopp. moo lay ak li ngay jàng moo lay sooy léegi loolu la ko ok euh, tey euh, ma tëj ak yow euh, tey Soumbédioune muy doon place boo xam ne ndax wax nañ ma Wakaam mooy mooy mooy ndeyu teeru yi mais Soumbédioune dafa nekk teeru boo xam ne moom it bu bu bu prestigieuse la maanaam bu wax bu amul soir gars yi dañuy wax noonu naan ay Wakaam ay kii hmm. fii teeru bi fi jëkk fi jëkk jëkk ñuy wax teeru teeru bàyyi soog yow muy ginnaaw pale hmm. foofu mooy teeru bu jëkk bi hmm. lébu yi fa la ñu nekkoon gendar yi fa la ñu nekkoon à part foofu tëngéej bi feebar bi ay feebar peste amee seen gars yi jëlee fi moo tax moo tax ñëw fi dëkk sëkk ay jekko ay ngaraafati ay bati koomati yooyu fa la ñu leen jëlee ñoom ñu ñoo tas fi lañ tur yooyu am ci ñëw fii sumbu jun mais yow bu njëkk teen beneen teen bi fi bu tax ñu wax teenu teenu waay soog la ginnaaw pare à part loolu tëngéej bu judd nag si après ginnaaw ñaari teen yooyu la judd waaw Euh, mais yow euh, mosoo dem ci beneen terre yow sa sa lépp maanaam ci sa dund yëpp sumbi jun nga ko def wala am na ko nekkoon avant ngay non damay damay damay dem séeréer te du fa liggéey di ñëw damay daan dem fi dem bu mooy liggéey jóge fi dem ba Gàmbi di fa liggéey actuellement sama doom yi ngi Gàmbi foofu moom di liggéey samay samay mbokk yi foofu Gàmbi xam nga man fi fi fi laa juddoo suñu jur laa cinquante trois ba léegi maa ngi fi waaw man nag a génn dem dem ba ne trois mois six mois ñëwaat ok euh, làkk lébu bi moom du wolof de maanaam li wala lébu bi li may la muy làkk wolof la xëy na dafa am nu mu koy làkkee wala parce que dañu dégg léeg-léeg euh, maanaam man mi alab lébu maanaam mooy defe naa man lébu laa man lébu laa non sans lébu lébu dafa nekk xet boo xam ne dafa bari ay façon làkkin hmm. te tamit gu nekk ak sa làkkin waaw ku nekk ni ngay façon ni ngay waxee mooy comme jën bii rek am na boo ñëwee fi mu ne la kii coof la kii jarañ la mais kii sel-sel la mais kii daal nga dem beneen teeru ñu la fii ñu li ñu naan jarañ la ñu nga dem fee ñu la sel-sel la nga ñu la fii kii kocc la nga dem fee ñu wax la beneen tur noonu la noonu la ëpp pardon noonu la lébu mel quoi xam ku nekk sa façon làkki la façon bu nekk ngay ne ñu làkki parce que ñoo dul benn. ok euh, euh, tey ban message nga am ci ñu mel ni Kounkandé muy féticheurs yi di foowee géej kon di ñëw ci buntu géej yi. Ah, def seen xar foofu foofu la nan euh, nga leen di wax. dafa nekk affaire boo xam ne yëpp loolu ñun ñu dëkk fi mënuñ ko interdit. Hmm. parce que suñuy mbokk ñi nga xam ne ay lébu lañ. Hmm. dañ koy def. da nga gis ku si feebar. waaw indi la ay nag fii tural la tëgg la ay fii dafa la ay ndëpp ak waaw ay yooyu mën doo ko tere nit ki. Mm-hmm. xam nga ku jógee fële ñëw tamit di yor ay kéem. Mm-hmm. di ko def mu doo ko tere waaw. waaye ñi nga xam ne géej si si ngeen di liggéey waaw mais si suturloo duñ la seetaan. nga mm-hmm. fi def loo xam ne daf ñu yàq fu ñu suñu sutura. waaw xam nga sa waaj wax ni léegi. Kounkandé bu ñëwoon fii du ko fi def li muy def du ko fi def fële. fu espace sangukaay bi da nga def. parce que yëpp ñoo ñoo ñoo ay millions ñoo ëpp gën ne gën ñu nekk suñu kër yi parce que ay millions la xam nga léegi fu Sénégal yëpp màbban sa gaal yàq sa gaal xam ko ngaa kooku ñun duñ ko seetaan ok waaye tey bu ko wootee woon war a ñëw nit ñi bari ñëw yéen ban jëloon ngeen fi matukaay boo xam ne moom ngeen ko naroon non moom moom si boppam ah. moom si boppam du ko naru ko woon defee fii ok sumbu la ñuy xam ah. mais moom fële la ko doon defee ginnaaw musée hmm. mais si ginnaaw samukaay bi fële foofu foofu am place foofu ñu bari sax ñu yore ay nag ñu def ay ndëpp ak ay kalantaan foofu lañ koy defee duñ ko defee fii ñu dëkk fii rek ñooy ñëw di def ak wala yi. ok waaw maa ngi lay jaajëfal. waaw ok xéwal jaajëfal. baax gis nga tey fii nii nga xam ne moom lañ nekk muy muy fi nga xam ne moo di ah, ah, ah, sumbe sumbe jun ci géej bi nga xam ne mooy mooy waaw ma ñu wax sama kii yow moom si may wax ak yow tey la tey tey la tàkku saanu tam xarit ki nga xam ne moo di Kunkande bëggoon a géej gi tey gii nii waaye mu ko def yow mi en tant que def naa def na ab yow lébu nga wala Ah, waaw tey en tant que lébu bu ndaw nekk ci tefes gi fii nga dégg ko wax ne dafa bëggoon a xar géej gi moom mi di ah, ah, Kounkandé tey tey tey defu ko yow lan ban réaction nga amoon sax ci ba mu ko waxee. say kàddu da nga wax li nga wax ba pare toog seen kër naan ay damaa corona la boo gëmee li nga doon tey ñëwal bi jàng nii. kenn dóor la kenn saagoo la mais xar ko rek dangaa wax lool ñëwal nga gérer ko gis mag da ngay say kàddu mais wax li ngay wax ba pare di fen kon balaa caat boo waxantee leneen kenn du la gëm loolu la euh, tey yow en tant que ndaw sa xam-xam xëy na yaa ngi jàng wàllu géej yu nu mel euh, bu taxawoon fii yow yow sa bopp ban ban matukaay nga bëggoon a jël ngir ngir intercepter ki nga xam ne moo di Kounkandé man moom bu bu koy xar ñaanuma yàlla fekkee ko ndax bu bu ko gars di gaañ nag moom ñu koy gën a gaañ ci laay bokk si que dëgg yàlla moom dama koy wax ma koy dégg faalewuma ko ragaluma ko ay jabaru jinne yooyu yëpp moom la rek li li am importance na ñëw xar géej mais moom ne léegi dootu xar di ndax ah, ah, imaam yi ñoo ko ñaan ngir mu mu bàyyi ko yan imaam imaam yi seen yoon nekk si bu ko xarul ñoo koy jëli ba seen kër mais léegi weesu na ndax tey la waxoon takkusaan jàll na tey la waxoon léegi léegi suba ngi fi incha allah. Hmm. suba mu ngi fi te force dañ koy jëli këram. ah waaw. kon yow noppi nga. ku gaay bu gaay yi jëlul maa koy jëli man man booy bu ndaw bi xàmmee hmm. man Assane Diop maa la ko wax ragaluma la tiitu ma maa lay jël si ba sa kër. waxal ak Koungheul mi ngi lay mi ngi lay seetaan. Koungheul yow laay waxal yóbboo nga ñëw xar géej gi sinon xamee nga ma bu baax man ak yow ñoo tase woon fële corniche la ñëwal xar géej gi. yow mën pare di fen baal fen da ñëw nga xaar sa dëgg eh, moo kon su ko defee rek eh, tey eh, noonu la gis ngeen fii rek moo nekk fi nga xam ne moo di ah? ah waaw sama sama sama gaa yi ñoom ñëpp daa mel ni waaw yow loo loo wax ci loo wax ci Kounkandé yow moom moo wax day xar géej gi hmm. ba pare xaru naan ay imaam yoo ko tere ne ko ñoo ñoo ne ko may ñu ko jël imaam boobu ko moom daa bëgg kii la daa bëgg daa bëgg a jël laal daal bàyyi xar bàyyi xar dama bëggoon siiw te amul amul lu mu siiwee ok loolu la bëggoon da nga fa mais yow yow yow yow yow tey seen géej gi nga xam ne loo am daafe naa lébu moom lu mu am géej ko gënal na naroon koo xar yow tey bu ñu di ko xar si tey bu fekkoon fomm ko woon nekk ci yoon di ñëw yow tey ji lu nekk nekk xale lan lan nga bëggoon def. laa bëggoon def nga ñëwoon di ko seetaan rek mu xar wala yow dafa am loo doon préparé. man damaa di ko rek xool ba xam ne naa ko xar ba xam wala du ko xar loolu rek laa bëggoon seet. Euh, sant naa bu baax gërëm la jaajëf sama gaay euh, mi ngi noonu yéen gis ah fii nga xam ne rek moo di Soumbédioune géej eh, gaañ mi euh, dégg ngeen li ñu wax ci géej gi nag. Euh, nekkul nekkul ne mooy géej bi gën a mag fii bari na ay géej yu mën a waaye rab bi nga xam ne mooy bi gën a mag ci ci rab yi nekk ci ci Sénégal moo fi nekk muy lëg daaru donc euh, moo tax xam naa euh, géej bi nekk géej boo xam ne géej bu bu mystérieux la géej boo xam ne la bu am bu am histoire la moo nekk fii tey nag ñoo ngi woon Soumbédioune fii nag la Bandé waxoon ne ñoo ko xar boo leen xoolee fële ngeen di gis foofu noonu la ko waroon defee ji ndax si Soumbédioune la bokk foofu la ko naroon defee ji waaye mujjul am ndax li mu wax yéen yéen dégg ngeen ko Euh, li mu wax euh, jarul ñu sax delluwaat ndax euh, déggal ngeen ko seen bopp tey nag ñu ñëwoon fii rek wan leen ko ndax li ñu leen di wax rek mooy amul leen loo xam ne dañ koy wax rek naan nii la demee wala nii la demee te fekk teguñ ci suñu bët dañ ciy teg suñu bët def suñu own analysis waaye wan suñu ay ay ay ñi nga xam ne ñoo ñu seetaan ñoom ñu def seen own analyse ku di nekk rek di jàpp wax si sa xel ñoo leen koy defee boo leen xoolee fii fii yëpp ay gaal la da gis ne mool yi fii la ñu nekk ñëpp ñëpp ñëpp ñëpp fii la nekk ah. moo nekk nii li yëpp ngeen di gis ñoom la seen i gaal fii la ñuy dem di nappe yaa ngi dégg li waa ji wax ne ci suba gi eh, géej gi dafa am nu meloon te bu nee na eh, ci ay waxam ah, ah, ah, eh, dafa mel ni dafa mer ay misaal la rek loo xam ne géej gi mu ngi leen ko doon wan kon su ko defee rek dig leen daje ci ci ci kanam incha allah tamxarit tey la tamxarit dinañ leen wan tamxaritu ndakaaru ngeen tamit am beneen gis-gis ci nan la mbiri di demee jaa ngeen jëf ba ci kanam